comme li wax rek dañuy sant yàlla julli ci Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam sant population Thiès sant suñu ñaari waajur sant aussi population commune Thiès Est parce que nag vraiment lii buñ ko mënee dañoo am équipe municipale boo xamante ni vraiment dañu xam lu suñu devoir ak li ñu population bi xaar si ñun donc damay wax ni maa ngi sant ñëpp que ñu nu bokkal parti ak ñu nu bokkalu parti parce que benn blocage musul am bu joge ci ñoom pour que suñu yéenee ñu mën ko def ci loo xamante ni ay euh, ay réalité ay euh, ay euh, investiture la yoo xamante ni dañ koy def mu jëm ci commune bi lépp luñ fiy réaliser rek dañ ciy ànd ak ñun moo war a stade bi bi ñu xoolee Lat Dior manqué na des années yoo xam ñu koy jooy partout ñu koy jooy depuis régime u Abdoulaye Wade depuis régime u Macky ñu xam ni Thiès importance bi mu am dans le Sénégal talent yi fi nekk ñi fiy génne ñoo xamante ni dem nañ euh, au niveau international comme les Dame Doy et autres ñoo xamante ni vraiment xam nañ li ñu jariñ te Thiès lañ ko doon defee ñun ñu toog xool ni Thiès amul stade que stade hippodrome Ndiaw Macodou mën nañoo fexe ba réabilité ko ñu ñëw par le biais de El Malick mu may ñu gazon donc ak éclairage ñu ñëw xool ni nag am na lu des parce que éclairage bi manqué na daaw defe naa ni finalu R100 bi ñu fiy def ñëpp déploré woon ni éclairage bi dafa manqué donc ñu ne nag kon nañu fexe ba lu mel ni duñ ko sàggane parce que buñ ko sàgganee suñu ndaw yi dootuñu mën a am fu ñu fubale moo waral ñu def grille de protection bi ngay gis qui nous a coûté treize millions et ñëw def éclairage bi qui nous a coûté vingt trois millions cent ak ñëw tey di leen jox subvention à hauteur de huit millions ñu pare nañu aussi coupe yi donc boo ko xoolee day nekk neuf millions cinq cent yoo xamante ne ci dans ren def nañ ko ci euh, stade bi donc loolu c'est des choses xamante ni sama rakk yi ma àndal di mes collègues Lamine Diallo Aliou Sow ñoom itam koo ci dem ci commune am mi ngi def tout pour que commune boobu mën a développer parce que loolu lañ ñu sas parce que ñun ki ñu àndal muy le frère sa aussi bu nu xoolee ci moom kon xamante ni courageux ni mu ambitieux ñoom itam bu nu wóoloo bàyyi nu fi dañuy décarcassé wu pour que mën a fexe ba changer visage yu Thiès parce que nag l'état moo tax mun ñu ko pardonner li mu def délaissé stade bi bàyyi ko noonu mën ñu ko pardonner mënul wax benn exquise parce que loolu du du àdd du politique. affaire politique la bien sûr ñun ñu wax ko ak ñu noppi ko parce que naka la ñu mën a wëree dans le Sénégal defar région yëpp ay stade nga ñëw bàyyi Thiès nga xamante ne amoon na stade réhabilitation rek moo desal xam nga wax nga ñëw délaissé ko parce que pourquoi ndax nit bon nit kooku doon doon ko doomam du ko doon. population cees ñoo ko moom moo tax may déploré même ñi ànd ak moom ci dans son régime ñooñu dama ni seen place matul parce que waruñu woon a arrêté di kaas que ni loolu dañ ko war na taxaw defar ko mais bàyyi ñuy dem di wëri di immigré yeneen euh, dëkk romb Thiès te ñoom ñu dëkk Thiès loolu je dis c'est honteux là vraiment on nous le déplorons. monsieur le maire nii ngay defee audience publique. mais déjà lii doy na audience publique parce que nag lii moom audience publique xam nga wax ak jëf mënta bokk. man ñun ñii duñu wax yéen a ngi gis toujours ñuy jëf depuis ngeen nekk Thiès depuis au temps de commune d' arrondissement yéen a ngi ñuy suivre yéen a ngi ñëw dans nos euh, ateliers yéen a ngi suñuy réalisation kon donc nekk loo xamante ni du ma woote pour def lan tentement wax wax ji moom jëf moo ko te ñun dañu def lu dul jëf te am na yeneen yoo xamante ne dinañ leen ci woo parce que Aliou woo na leen démb euh, di euh, inauguré poste de santé ak i ambulance tey gis ngeen lii wax nañ leen montant bi de quarante cinq millions et Euh, marché Xelga di ngeen ko gis bientôt bëgg naa benn phase bi pare na à quatre-vingt-quinze pour cent bu leen neexee suba ngeen dem vérifier ñun du ñu wax dañuy jëf parce que nag dañu fi teg pour que ñu am ñu fi bàyyi ay empreinte yoo xamante ni bu ëllëgee ñiy ñëw euh, génération bi ñëw am fu ñu démarré mais bu ñu ñëw bëgg ni dañuy commencé foo xamante ni dara ne dafay métti wax moom day naa day day naaw ñun li ñu def dañ koy bind ci marbre merci <laughs>